résilience Covid 19 bi nga xamante le président Macky Sall mo am xalatam bu rafet deug nga ba ànd ca ministre de culture Abdoulaye Diop pour nek kat acteur culturel yi nek ci réew mi. te xam ne euh, bu dara yënguwul ñom duñu dem kon nak il faut ñu jàpp lolu euh mo waral jataay bi mo mu jël deug ma lu tolloog

di ñaanal ministre bi di a président de la république te di ñaax suñu mbokk artistes yi ne leen lii mënoon na ca bañ a fekk président dañu waxante dëgg mënoon na ca bañ a fekk tam monsieur le ministre nga xam ne nelaw guddi nelaw bëccëg ànd ak ses experts que sont le directeur des arts def ci liggéey bu ama am am solo moo tax dañu ni ah sama gaañ am na programme yu ñu war a déroulé ku nekk sa secteur ñu jub jël jël xaalis bi jëmale ko foofu am na yoo xamante ni da nga ma xëy euh, ñu ci bare bare bare bare ci côté sedaat bi la ñu dem pour mën a jël seen seen ndimbal mais li nga xamante ni moom moo ñu concerné ci sunu déroulement activité lépp luñ ciy def dañ koy bind ci kër yu leer ndañ ndañ ndañ ndañ ndañ parce que kat ñun dañu bañ ko ñu jàpp parce que ay gor lañu gor lañu de moo tax euh, il faut que nit ñi nag ku nekk ànd ak xelam sorte que eh bien yëf yi mën na jeex jeex lu rafet ku nekk daloon sa liggéey